mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbooleem kuy seetaan chaîne bii di Tivaouane 24 TV ñu ngi lay nuyu di la ziara la jox sa wàccuwaay waaye di jiital ci néew bi alxalifa Serigne Babacar Sy Mansour yàlla yàlla guddal fanam may ko wér ak njabootu Seex Seydil Xaaji Maalik yëpp mbokk yi Tivaouane a ngi nii Tivaouane dëkku leer Tivaouane dëkku barke dëkkub Seex Seydil Xaaji Maalik si waaye dëkkub Seydi Aboubacar si radiallahu taala anhu Tiwaawan a ngi nii ngeen di gis nii fa tabaarakallaahu jumaa ji nekk nii muy grande mosquée Tiwaawan bi nga xam ne ñu ngi ci liggéey fa tabaarakallaahu macha allah comme ni ngeen koy gisee nii ouvrier yi ñu ngi si biir ñu ngi liggéey fa tabaarakallaahu liggéey baa ngi mucc ayib macha allah ñuy ñaan rek yàlla na àgg ak jàmm waaye bu ñu fàtte cotisation yi. lépp lu waaye am lu waaye man rek nga def ko ci defaloo ko kenn sa bopp nga ko defal yàlla buur bi nga xam ni moo am fay yàlla ni yàlla defal fay yàlla na ci am ngërëmal sunu borom waaye ngërëmal borom dëkk bi ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallahu ñuy soññoor suñu bopp baax a baax di leen soññ mboolem événement yi nga xam ni mi ngi am fii si Tivaouane ak dëkk yeneen yu dul Tivaouane lu si mel ni gàmmu jak saaw ak feneen ak feneen foo xam ni incha allah fépp fu ngeen fa dem rek dinañ fa jaay li nga xam ni mooy pens yi waaye képp ko ci soxla tamit boo duggee ci site bi www point grande mosquée bu tivaouane point com euh, grande mosquée bu tivaouane point comme boo si duggee rek incha allah waa jamaatu nuur as-sunniya def nan foofu information yëpp pour képp koo xam ne soxla ci ay information yu gën a leer rek fa tabaarakallahu incha allah bu duggee ci site boobu rek di ko jot dina jokkoo ak ñoom waaye mbokk yi ñii nii nekk fii si Tiwaawan euh, fa di leen indil ay image yoo xam ne ñu ngi koy filmer fii euh, janoo ak euh, jàkka ju tedd ji waaye jumaa ji fa tabarakallahu macha allah ñu fas leen a dugg ak yéen ci biir dëkk bi ziar rawdu Seydi Aboubacar si radiallahu taala anhu waaye ziar mbooleem gaay yu baax yi nga xam ne ñoo tëdd fii rek fa tabarakallah yàlla na nangul ñu suñu ziar nangul leen incha ñu wéy ak yéen dugg ak yéen ci biir barab incha allah ñu continuer ak yéen wan leen ay image fii ci Tivaouane 24 TV. ñett mag romb ko yenu ñett njaq bee di ndox mu set bee di ndoxum déem bee di ndoxum goowe sa yarin géej di xuloog ñoom naan kii nga xam ne moo gën a fees géej géej paasewul tefes Maodo tooyal na ba Europe xam ngeen ni géejam gi gutt manu ko sang day jox rekk yoon cëram waaye wamin ajabin tax si loolu kulla xullatun ñi ni sëriñ Aline mu ni góor gi ngeen di tuur njaq si wa fii sadri mil bahri ahasamu musibidi ñi ni sëriñ Aline ñu sang Maodo ba noppi teg ci jaag gi Babacar Si jiitu Alaaji Mansoor topp ca ñu wute gannaaw jàkka ja ndeysaan ñu ngi koy jullee Serigne Aline Guèye ni diplôme yi ci Maodo bu dammul bant bu wow yar bi lay jox jaat wàllam wa min ajabin xamlul axillaa bi naqsihi wa maxmooloo sabaran wisaanun bi jël ma di ñu jël Maodo dugal ci biir pax mi xalifa Babacar naan suul leen ba ñu suulee bay dem mu sol palmaanam ba daaj borakaareem ba sëñ Yàllin Géy nee ma dem dem mënumaa dem nee samay tànk laxasoo nee ma ne ay bàyyu alaaji Mansuur yéem na ma tey nooy fanaane ci bàmmeel فوا عجبا من أحسن الدر حسته دريح أبي المنصور مقياس مكمدي تغيب عنا وفينا تفجر أي بوكو غاتشنتي ترى صدفا فيه يتيم صبر جدي كي تد موي سليمان أمرين سيد منصور وخنا لين كبيك mooy muusawiyun bi la jëtin sëriñ Mansoor wax na leen ko bi kii tëdd mooy xalilu diinin sëriñ Mansoor leeral ko bi kii mooy sunniyun li Muhammad ñu ko bos ko ñu ko Babacar Seye ngi lay xaar sëñ Yalin Guèye ñëw fekk góor gi réeg bala kaarem mbaak leeruk tiijaan ga du ko jengal du ko sengal su ma ko daaj ren sa koy daaj déwén Cheikh Tidiane si ne bu sañse nga bëgg caa topp Cheikh Tidiane si ne bu dee julli ji jumaay ne luy xëm maak Mansour ñu ni Cheikh Tidiane si mu ni ndeysaan kalimaatu woo xutawaatu woo laxasaatu woo addaxat muqaddaratan wala tasyila yow it yaa doon Maodo ñépp ñëw wër la te woowoo kenn ñu ni Cheikh Tidiane mu ne la ataaka laa bi diayatin ahlu safaa aw farra minka mu aanidun isdi xiilaa ñu ni Cheikh Tidiane mu ni loolu moo tax waxadawta munfaridan ka annaka ummatun fi zaati lasta bi gayrihi masquula ñu ni Cheikh Tidiane si mu ni teddu du dog te du dog <coughs> te du dog asa baqiyatu waaye ba tey fa tabarakallah ñi ngi continuer ak yeen fi ci Tidiane 24 TV yéen a ngi gis nii kër keur borom daara ji mo nek ni waaye barabu Seydi bakkar bi mo nek ni fa tabarakallah ñu fas yéene duggu fa ziar fa ñaanal leen jamm mboolem ki nga xamni yaangi ci ran siraan Tidiane 24 TV rek ñi ngi ñaan ci barkeb Serigne Babacar si yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm defal ñëpp xéewal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ngi nii Tiwaawan dëkku leer dëkku barke fa tabarakallah ñu dugg ci biir barab bi ziar taral bilaada kajoor njaambur wa jolof saalum bawol wagabong tas alilu xiyaaw ñun sëriñ Mansuur mën laa siyaama siyaama dakaaru xayru xuraa kasaaka baalu yaa xannat li max naaw mu toog fii ci saal bi xat sa xamal kull fil misaari doona miran fii daaka xaqan masidaatun ka dal lool moo tax tas almusaatu min al baraari saaxika ma tufdi dawaa'ir afaa jandi jët waaw ñu ni Seex Tijaan si mag من حتى كأن لدي حكمة ربي وأي مفبسيس بدجا تيال يزداد من تحببا وحلولا في آسي في آسي في آسي الأصل دنيا التي قد أصبحت أحداثها لا تعرف التأجيل loolu moo tax waxadaa bia asxaabu kullu mu azamin xulataa laalaa yëpp amoona suulaa moo tax sëriñ Alioune Gueye tiim ko ni ko laa xarwa an yarisal ba tey mbokk yi ginnaaw bu ñu génnee foofu ca barabu Seydi Aboubacar si radiyallahu taala anhu ñaan ñaan mboolem ñaan yi fa ñaan rek yàlla na ko yàlla nangu ci barke yonent bi sallallahu alayhi ba tey ñu ngi nii jëmal fi nga xamante ni mooy barabu al sëriñ Abdul Aziz Al Amin fii ngeen di gis nii fi la barabam nekk moom Al Amin fa tabaarakallah moom it dem nañ fa ziar fa ngi ñaan ñaan ñaan ñaaneen fa na ko yàlla nangu waaye yàlla na yàlla yekk leeru Al Amin taas ci barkeem liggéey baa ngi noonu nag àggagul fa tabaarakallah waaye ma ngay avancé bu baax a baax a baax. kon ni ngeen bokkee turandoo billaay da yilif waaye gën laa yaru. fanaj la ma Ousmane Sëri mudakkir yow mii yaa ngi fàttali atiq ibn Usmaan mais boo ay Muhammadi kon nag boo naree dem penku saan wi del si fa kunta Aba Bakrin te moom mais waqat kaana baadoo imaaman te billaahi gënu laa yaru dalaa yilif looloo fa bàyyi bil yeddi fal yeddi ni ko fekk may dee man Alioune Guèye fa tabaarakallah mbokk yi nii seetaan fii ci Tivaouane 24 TV ginnaaw bu ñu duggee ci barabu mag ñooñu ziar fa ñaanal leen waaye ñaanal suñu bopp waaye ñaanal réew mi waaye ñaanal képp koo xam ni yaa ngi seetaan chaîne bi Tivaouane 24 TV fa tabaarakallah ñi ngi noonu nag fas yéene wàññeeku euh, génn dëkk bu sell dëkk bu teey mu di Tivaouane fas yéene jubali fi nga xamante ni moo di Ndakaaru lii daal mooy ay image ak ay vidéo yoo xam ni euh, Tivaouane 24 TV jëlaloon leen ko fii si dëkk bu sell bi di Tivaouane ñuy waajal euh, li nga xamante ni nag mooy euh, ziar général bi nga xam ni moo nar a am le 12 mars bi waaye balay loolu xam ngeen ni gàmmu jagsaaw suba jàmm la incha allah fële ca jagsaaw jagsaaw bu maam Abdul Aziz waaye jag Seydi El Si radiyallahu taala anhu waaye bu Seex Sidi Eh, ahmad si dabaax bi nga xamni mom moy eh, nek fofu ci ca fa tabarakallah di taxaw tol yaag lepp lo xamni ma ngay am fofu ci jagsaaw fa tabarakallah ni wo ñepp rek kep ko xamanteni man nga tiew rek rek ñew fofu ci ca euh fa tabarakallah ñi ngi ziarat ñepp di bal ñepp ak way di bal ñepp ak. li rek lan amone yene dal eh, won len ko fi ci tian 24 TV fa tabarakallah fi ngeen di gis yépp ci biir Tivaouane la fa tabarakallah marché baa ngi noonu ñu noonu jaar ci biir marché bi fas yéene jubali fi nga xamante ni mooy eh, Dakar waaye daal dellu sant mbay yépp way na mbay dellu sant mbay yépp way na mbay dellu sant mbay yépp way na mbay dellu sant mbay képp woy na mbay dellu sant mbay kenn desul du rakk kenn desul du rakk du dox du rakk du doom kenn gisul du rakk du doom wóor na waa Tiwaawoon alim yaa ngi yëpp la ji alim yaa ngi yëpp la ji alim yaa ngi yëpp la ji alim yaa ngi yëpp la ji alim yaa ngi yëpp la ji bandi diine seen bandi sul ku lay tëdd tabaarakallah ba tey mbokk yi nii seetaan fii ci Tivaouane 24 TV yéen ñi miin fii fii la naan garage Dakar ngeen gis Eh, kër Seydi Mouhamadou Moustapha Sy Al Maktoum këram gi moo nekk noonu waaye fii daal fi lañ leen di tàggoo lii lañ leen indiloon fii ci seen seen bi Tivaouane 24 TV Tivaouane a ngi noonu ñi ngi noonu fas yéene dem incha allah lii lañ leen fi indiloon beneen yoon bu ñu fi ñëwaatee dina leen fi jëlal yeneen i image incha allah leen di sant di leen gërëm Tivaouane a ngi noonu ña ngay dem ña ngay dem Tivaouane Sénélec baa ngi noonu ku miin agence Sénélec bi xam ni fii mooy buntu fii boo ko rombee jubali Dakar rek yaa ngi romb station sel bi de EDK heure bi nga daal dugg fi nga xamante ni mooy Ndiassane daal di génn Tivaouane ñu ngi leen di ziar di leen baalu àq di leen wax ngeen wéy di abonné wu fii ci Tivaouane TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëfati yàlla na yàlla nangul suñu ziar nangul leen. tabaarakallah ba beneen yoon jërë ngeen jëf. mbër yi di naan tawal mooy mbërum fas gi mbay si xayru xalqi jox ko mbay mu seet ak bul góor gi daawul lu dul yaay taxaw naan ko bàyyi tëddal li ma war maay taxaw li nga ci xeex ma ne Cheikh Tidiane ëpp yaa ko xeex ba baa bëkkër si lii la tëral nan ci jaar yàlla yàlla dolli sagal adaram nan di ñaanal yàlla dotti fay an juboo kii nan juboo kii nan juboo kii nan juboo kii nan juboo Seex Tijaan si yaa ma tawoy Seex Mansoor si yaa ma tawoy yal na buur bi daal ko yëpp dem siyaar ko